ñu ngi leen di ndokkeel njiitu réew mi ni mu ko waxee nee na mi ngi nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp ci at mu yees mi ci at mi nga xam ne nii itam moom la ñuy dugg nee na nag euh, dafa am lu mu dajeel li mu dajeel mooy faatu gi nga xam ne nii ki nga xam ne moo di kilifa kër labbe di pape euh, Benoît XVI moom moo fi bàyyeekoo loolu nag mu nekk xabaar bu tiis boo xam ne nii moo waral mu yi kay jaale waaye itam di jaale mbooleem ñi nga xam ne ni itam dañu fee bàyyeekoo ak ñi nga xam ne ni itam dañoo nekk ci lalu hôpital yitam mu leen di massawu di leen ñaal itam ak wér ci nu mu gën a gaawee. njiitu réew mi nee na ci wàllu koom suñum réew ci at mi eh, ni mu nekk woon ni ki daaw itam dañuy génn ci li nga xam ne nii moom moo di wàllu tawat ji nga xam ne moo doon tawatu Covid 19 mu am ay njeexital nag ci suñum koom. waaye nag guerre bi nga xam ne dafa nekk ci diggante Russie ak Ukraine itam am ay njeexital ci wàllu koom mi waaye nag nee na loolee doon loo xamante ne ni lu mitti la ci koom yépp nag ni ñu ko dundee am na ay natt yoo xam ne ni def nañ ko ci waaye nag gàcce ngaalaama bu ñu xoolee jiigo yi nga xam ne ni def na am nekk di amal nañ ko seq nañ ko donte am na ay jafe-jafe yoo xam ne ni ci wàllu koomu àdduna bi yépp nag dafa gàllankoor àdduna neen nag la ciy missaal mooy kër gi nga xam ne day faral di natt ak itam di xayma ay jéego yu ñu def ci wàllu koom ñu koy wax World Economics moom day nee na suñu réew mi nga xam ne nii moo di Sénégal day donte am na ay jafe-jafe ci wàllu koom ci wàllu àdduna bi yëpp bu ñu xoolee diggante fukki at yi di mille 2011 jàpp mille 2021 um, am na ci ay taxawaay yoo xam ne ni saa su ne rek bu ñuy seqi jéego delluwuñ ci ginnaaw benn yoon waaye kay dañuy gën di dem ca kanam nee na loolee nag daanaka taxawaay la boo xam ne ni dañu koo taxaw ba ci mën cee am daanaka natt bu rafet boobu ak woy bu rafet woowu moom njiitu réew mi itam nee na euh, ci suñu wàllu euh, yi nga xam ne ni moo doon suñu gafak ak réew euh, bu ñu ko xoolee ni ñuy faral di natt at mii ñuy dëgmal day am na njéene téeméer bu nekk ñu am ci fukk tey fi mu nekk nekk ci li ñu toll moo di téeméer bu nekk ñeenti yu tomb juróom-ñett nee na loolee nag lu ñu xoolee suñu pétrole ak suñu gaz bi nga xam ne ni am nañu yaakaar ci di ko mën a jëfandikoo loolee dina am lu am koom moo xam ne itam comme mu gën a yaatu mu ci indi la nee na ba tey ci li nga xam ne nii moo doy la ñuy dajale mu doon suñuy lempo ak njàmbaar gi nga xam ne nii itam ñi ñu ko dénk dañ ko cee wane gis nañ ne téeméer bu nekk juróom-ñeent fukk bi fexe nañ ba mënu koo dajale farin koo itam fexe ko ci lempo yi loolee nag dafa am lu muy indi ay taxawaay ci suñu wàllu koom ak suñu wàllu itam économie nee na nag loolu daanaka taxawaay la boo xam ne taxawaay bu rafet la bu ñu wane ci wàllu woowu donte nag Euh, jafe-jafe yi moom ci wàllu àdduna ni mu ñu wëree Sénégal moom muccul ci loolu nee na li ñuy wax rapport bi maanaa xayma ak liggéey boo xam ne ay gëstukat dañ koo def te jagleel ko li nga xam ne nii moom moo doon wàllu nañu yore woon xaalisu Covid 19 bi neena na loolee boo gisee ñu def ko moo di nag dafa am taxawaay boo xam ne dañ ko war a di taxaw ngir gën di mën a xayma ak setantal bu baax a baax a baax a baax a baax li nga xam ne moo doon suñu koom ak li nga xam ne itam moo doon suñu gafak ak réew kon nag leen loolu bu ñu demee ba jox ñu liggéey bu ni mel dinañ ko jaarale fañ ko war a mën a jaarale ba li nga xam ne ni itam moo de wattu ak bàyyee xel gi ñu war a mën a bàyyee xel loolee ñu mën cee bàyyi xel loolu moom njiitu réew mi nee na euh, li nga xam ne dafa soxal ba tey suñu wàll yi nga xam ne moo doon at mii ñu génn euh, ku nekk xam na ne ci wàllu jàppalante ak wàllu taxawu day da koy laaj ndax àdduna moo demee am na nag ak yokkute goo xam ne ni gis nañ ko mu toll ci ñaari téeméeri milliards ak fanweeri milliards ak juróom benn milliards yoo xam ne nii dañu koo dugal ci solde yi ci salaire yi nee na loolu benn teg na ci itam ne li nga xam ni moo doon wàllu courant bi ak wàllu yi nga xam ne wàllu gaz bi ak wàllu euh, essence bi ak li nga xam ne moom doon la ñuy dundee xam nañ ne bu baax ca bitim réew la yokkoo mu am itam ay jafe waaye nag teewul mu am la lu ca xam ne ni nguur gi da koo toggoo la ca nguur gi toggoo buñ ko xayma toll na ci juróom-ñaari téeméeri milliards ak juróom fukki milliards yoo xam ne ni nguur gi moo ko gàddul boppam ngir loolee bañ a diis ci waggi ñi nga xam ne itam ñoo doon askan wi ba tey itam nee na ci li nga xam ne nii moom moo doon wàllu lempo yi lu tolloo ko téeméeri milliards ak juróom fukki milliards ak juróom-ñaari milliards nguur gi itam bàyyi na ko ci la mu waroon a fayeeku ci la nga xam ne itam ay lempo yi waroon a dugg la ca fay indi ceeb ak ñi indi ak ñi nga xam ne itam ñoom ñooy indi lu ci mel ni itam mboq ak suukar ak diwleen loolu yëpp nag bu ngeen gisee ñu def ko mooy gën a mën a jàppale ñi nga xam ne ñoo doon way jëfandiku yi ba loole seeri ci bitim réew bañu mitt lool ci ñoom nee na nag lii nga xam ne nii ba tey moo di jàppale euh, askan wi lu tolloog euh, juróomi téeméeri junniy njaboot ak ñeent fukki junniy njaboot ak ñetti junniy njaboot ñooñu day am na lu ñu leen jagleel ci wàllu koppar bu ñu xoolee koppar yooyu toll na ci ñeent fukki milliards ak ñett yoo xam ne nii dañ leen koo jox di leen ko séddale ngir mu mën a indi itam ak jàppandal ci seen wàllu nekkin ak jàppandal itam ci seen wàllu dundin ak la ñuy ittewoo di ko soxla nee na nag noonu ba tey noonu lañ ko gisee ci li nga xam ne nii moom moo doon wàllu euh, wàññi gi ñu wàññi wàllu euh, dëkkuwaay ak wàllu itam luyaas bi nee na ba tey li nga xam ne moom moo doon yenn taxawaay bu ñu war a taxaw askan wi ak li nga xam ne itam moom moo doon dimbale war a mën a dimbale askan wi ak nga xam ne itam moo doon dugal nguur gi war a dugal loxoom itam ci yenn jafe-jafe yi moo waral mu jël lu tolloog ñeen euh, fukki ñeent fukki ñeenti téeméeri junni mi milliards ñeent fukki milliards ak juróom fukk ñeenti téeméeri milliards ak juróom fukk yoo xam ne nii ci wàllu dund gi lañ ko dugal ngir lépp itam mën a doon loo xam ne ni ak ruxsa lay doon bi maanaam mën a woyofal lool itam ñi xam ne nii ñoom ñoo koy jëfandikoo ba ñu bañ koo yëg nee na loolee nag nag nguur gi da koo gàddu ngir gën a mën a indi ak jàppandal ci loolu noonu lañ ko gisee itam ci wàllu essence bi noonu lañ ko gisee itam ci wàllu courant bi loolu yëpp doon loo xam ne nii nguur gi nag moom moo ko sasoo leneen lu mu sasoo itam ci wàllu sécurité familiale bi maanaa jàppale gi nga xam ne nii moom la ñuy jàppale ñi nga xam ne ñoo doon askan wi ñu seen loxo jotul seen ginnaaw te itam ñu war leen a gees war leen a mën a jàppale lañ leen doon jàppale dinañ ko jële ci ñeen ñu juróomi junni yóbbu ko ci juróom-ñaari junni noonu ñu koy faral di leen ko joxee ci ay suñ saay suñ demee ba jëmmi jamono. ba tey ci li nga xam ne nii moom moo soxal yenn taxawaay yi moom jiitu réew mi di président Macky Sall nee na ngir gën a mën a indi ak taxawu ngir gën a mën a indi itam lii doon ak jàppandal ngir gën a mën a indi itam li nga xam ne moo doon geesu ak itam taxawu xam ne moom la nguur gi war a mën a taxaw aw askanam ak ñooñam eh, dina suñu réew nag am na ci limbër yooyu ak taxawaay yooyu dem nañ nag ba génn fi mu nekk nii jamonoy réew moo xam ne nii daanaka dañoo doon ñoo xam ne nii dañoo ndóol nañ ko mën a tuddee ba nekk nag ci jamono yoo xam ne nii réew mu nekk nag ay euh, ay buntam nag ngir war a mën a seet li nga xam ne moo doon réew mu koom réew moo xam ne itam dafay bokk ci réew yu am euh, doole yi ci wàllu koom ngir ñu mën a dugg ci bunt yooyu daal nee na taxawaay boobu suñu yenn toxalin yi wan nañu ko te may nañu ko itam. ba tey nee na li nga xam ne ni moo doon wàllu mbay mi bu ñu xoolee kenn bàyyiwu leen euh, kenn fàttewu leen noonu la cay mandarga di ci misaal itam mooy koppar yi nga xam ne moom la ñu doon jël di ko dugal ci wàllu mbay bu ñu xoolee ci at mi nga xam ne nii moo doon atum ñaari junni ak fukk juróom-ñeent lu tolloog ñeent fukki milliards lañu dugaloon ci li nga xam ne nii moom moo doon wàllu jiw bi wàllu engrais bi ak wàllu itam la nga xam ne nii moom moo doon wàllu euh, lañ leen di jox ci wàllu jumtukaay wàllu machine ak lu ni mel waaye nag incha allah ci at mi sax nee nag ci at mi sax di lu tolloog juróom-ñetti fukki milliards lañ ci jël kon dañu jóge ci benn bi ñaar ci ko ci diggante boobu wàllu mbay mi ba tey nee na li nga xam ne nii nag moo de la cay màndarga mooy bu ñu xoolee la ñu góob mbaa la ñu deqi mbaa la nga xam ne moom la ñu wit moom la ñu foq ci wàllu mboq ak leneen boo xoolee ci wàllu euh, euh, dugub ji ak lépp loo xam ne nii moo doon wàllu pepp mi jóge na ci ñaar ñetti million ñetti million ak juróom ci wàll li nga xam ne nii moom moo doon euh, lañ la nga xam ne nii moom la ñu jagleel ci wàllu ton ci wàllu gerte gi nag lu tolloog benn million ak genn wàll am nañ ko li nga xam ne moom la ñu deq ci wàllu woowu kon loolu yëpp dafay màndargaal lañ ci dugal ci wàllu jumtukaay la mu jur itam ci wàllu ñoreef ba tey ci wàllu woowu moom nee na li nga xam ne ni moo xam nañ ne wàllu mbay itam dafay laaj àdduna muy dox muy laaj itam ay jumtukaay yees moo waral nag ñuy bay ba noppi nag di ko mën a fexe ba sotti ko ngir gën a mën a tonal koom ma moo waral ñu ubbi li nga xam ne moom nag ay agropole ay kër yoo xam ne ni la ñuy bay dañ ko fay soppee bu ko defee ñu koy mën di jariñoo te itam di ci mën di am loo xam ne ni itam mooy gën a taxaw taw fexe wàllu itam yenn tool yi nga xam ne moom la ñuy wax ay ferme naataange ak waar wi loolu yëpp doon na loo xam ne suñu réew da koo def ngir gën a mën a indi am xëy waaye itam ngir gën a indi ak jàppandal ci lay tukkee ci wàllu mbay mi am na jumtukaay yoo xamante ni ay machine bojj lay doon ay jumtukaay yoo xam ne nii itam day roose tool yi ay jumtukaay yoo xam ne itam ay magasin yu mag lay doon yu ñuy mën di denc la nga xam ne ni moo doon ñoreef ya mbaa la nga xam ne itam moo jógee ca tool ya te ba duy mën a yàqu loole ñu mën koo fekk mën koo ñoŋal nee na loolu itam am na ci liggéey bu am solo boo xam ne ni def nañ ko ci nee na am réew itam ku ko tudd ak doxalin ngir mën a itam dem ca kanam fok nga tudd lu jëm ci wàllu yoon ak ay wàllu tali ak lu ni ak wàllu dem bi ak dikk bi ak li nga xam ne itam moo doon ay tabax yenn ba dëkkuwaay ak yenn barab yoo xam ne nii tey jii ku ne jàkk lii doon teer bi ku ne jàkk stade Abdoulaye Wade ku ne jàkk pont Nelson Mandela ba nekk ci Foundiougne ku ne jàkk itam pont Marsassoum ku ne jàkk itam autopont euh, bu Kër Massar ak yeneen tali yoo xam ne nii dañoo fasantikoo fu ci mel ni euh, Tambacounda Goudiri Kidira Louga ak Daara yooyu yëpp dafay mandargaal liggéey yi ñu def ci wàllu dem ak dikk ak ci wàllu tali ak ci wàllu itam li nga xam ne nii moo di gën a neexal dem bi waaye itam gën a jegeñal dëkk yi nee na loolu yëpp nag bu ñu ko xaymaa du tolloog juróom benn fukki chantier sémb nañ ko naal nañ ko te itam ñu ngi ci liggéey boo xamante ne ni ay doomu Sénégal ñoo cay liggéey di ci am kom bu seen ñaq fende itam ñu am lu ñu ci jëlee ak ñi nga xam ne ni itam ñoom la ñu seq lu ni mel wàllu BRT bi missaal la ci diggante Géejawaay ba Ndakaaru ak ñaareelu pàccu teer bi nga xam ne itam diggante jam ñaajo ba AIBD ak yoon wi nga xam ne itam moo di euh, boor yi Dande Mayo ca Fuuta ak fi nga xam ne itam diggante Kidira ak Bakel ak autoroute bi nga xam ne nii moo waree rek itam nekk ca gànnaaru réew mu Sénégal Ndakaaru jaar Tiwaawan dem ba fi nga xam ne nii moom moo doon dar loolu nag incha allah liggéey yi ci at mi nga xam ne nii moom la ñuy fas yéenee dugg dinañu ko tàmbale ak yeneen loo xam ne nii ci wàllu li ñuy jëlee ci wàllu pétrole dinañ ko ci mën a jaarale ci wàllu woowu nee na ba tey ci wàllu ñi la dëkk yi ci wàllu tool yi ndax ku wax wàllu mbéy itam du tudd yenn dëkk yu mel ni Kaffrine Kaolack cees ak fi nga xam ne nii moom moo doon yenn barab yi la ñu fay jëlee nag mu doon ñore fi fokk ñu am ay yoon yi leen di mën a jaarale ba itam gën a mën a ñoŋal la nga xam ne nii moom moo doon lu ni mel ci wàllu liggéey bi nga xam ne itam moo di gën a fexe ba yenn dëkk yi tijjeeku fexe itam ba yenn ñi amoon ay jafe-jafe ba kenn mën faa bañ yegg loole ñu mën cee bind indi saafara ci at ñi nga xam ne nii moom la ñuy juróomi at yi daal lu tolloog ñaari junniy kilomètre ak juróom-ñetti fukki kilo juróom-ñetti téeméeri kilomètre ak juróom fukki kilomètre ci wàllu tali moom sémb nañ liggéey boo xamante ne nii ci dikk teeru yi ak dikku taax yi dinañ ko ci def loolu di mandargaal taxawaay bi ñu amal ci wàllu woowu neen na nag loolee bu ñu xoolee juróom benn fukki liggéey euh, entreprise yi nga xam ne dinañ ca liggéey lu tolloo ko juróom fukki junniy doomu aadama itam dinañ ci am am xëy di ca xëy di ca gont na nag PUDC nee na Puma nee na Promoville yooyu yëpp doon na ay kër yoo xam ne dañoo bànqaasoo ci nguur gi di am ay liggéey yoo xamante ni fu loxo nguur gi jéggul di itam directement ñoom ñu am bànqaas boo xam ne ci lañ ko ciy dugal ñu jox leen ay koppar itam ñu soppi xar kanam yenn bare bi moo xam ci wàllu courant moo xam ci wàllu ndox moo xam itam ci wàllu itam yenn dëkkuwaay nee na juróom-ñaareel juróom-ñetteelu euh, euh, place bi nga xam ne ni moom la suñu réew am te kër gi itam di global economy daal di ko koy jox ci wàllu tali day nee na ci yenn réew yi nga xam ne nii ñoo nekk ci biir Afrique toll ci fanweeri réew ak juróom-ñett suñu réew moom moo ci nekk ci juróom-ñetteelu place bi kenn nag loolee na misaal la ci ba tey moom njiitu réew mi xam na ne ne ci wàllu koom yi nga xam ne dafa nekk ci suuf si ñu ko wax mbell yi am na ITIE doon kër goo xam ne ni moo koy saytu di ko xalaat am na taxawaay boo xam ne nii mi ngi ko ciy taxaw ak itam maanaka saytu goo xam ne ni mi ngi koy saytu lañ ci am ba lépp loo xam ne dafa war a leer nañ dara bañ cee doon kumpa ba li nga xam ne itam foofee foofa lañ ko war a mën a jaarale jaarale ko fu ni mel ba tey nee na li nga xam ne nii dafa soxal wàllu courant bi Euh, ku xool li nga xam ne moo di wàllu itam pétrole bi lu ci mel ni itam projet bi nga xam ne nii ci wàllu pétrole te mu nekk ci Sangomar ak waaye itam projet bi nga xam ne ci wàllu gaz la te mu nekk ci GTA ñu koy wax GTA loolu yëpp am na ay liggéey yoo xamante ne ni yenn këru liggéeyukaay dañ ko ciy am di ko ci xëy ñu ko ci am itam am koom mu tonawu boobu boo xoolee lu tolloog téeméer bu nekk juróom fukk bi itam am na ci yenn liggéey yoo xam ne dénkaane nañ ko ci loolu di mandargaal itam daanaka taw feex bu ci ñooñee di gis seen bopp nee na ci at mi nga xam ne itam incha allah moom la dëgmal di 2023 bu ñu ci yàlla yóbboog jàmm ci wàllu courant bi li nga xam ne nii moo doon bëgg-bëgg bi daal moo di kenn bañ a tumranke lenn ci wàllu courant bi lépp nga xam ne itam moo doon fu ñu war a mën niit itam waa Senelec seen kéem kattan ngir ñu def lu ni nee na li nga xam ne moo doon taxawaayu këru courant bi nekk ca Malicounda ak leneen li nga xam ne nii itam moom moo di yenn lampadaire bi maanaam ay lamp yoo xam ne ci naaj wi la ñuy niitoo ci la ñuy rootee ba mànd itam ba mën a itam am daanaka li ñu war a mën a leeral lu tolloog téeméeri junni ak fukki junni ak juróom eh, ci li nga xam ne nii moom moo doon ay làmp yu ni mel fas yeneen lañ leen ci amal nee na lu tolloog itam ñaari junniy dëkk dëkkaan dinañ leen ci amal ñu mën leen a niit ndax loolee nag PUDC da ciy gar li nga xam ne ni moom moo doon waaram ba tey ci li nga xam ne moo soxal lu jëm ci wàllu dund gi ak li nga xam ne nii moom moo doon daanaka wàllu ndox mi ndax dafa doon lu am solo lu itteel itam am réew ti kenn mënut a tudd itam jamono kenn mënut a tudd itam àdduna te tuddoo moo waral yenn barab yoo xam ne nii ca yenn fi ci mel ni ci biir Casamance ak feneen foo xam ne nii itam dafay nekk fii ci diwaanu Ndakaaru ak fi nga xam ne itam ci suñu wet fii ci mameel yim ndox moo xam ne dafa dafay xat ak xorom am na ay ja taxawaay yoo xam ne nii ak pas-pas boo xam ne nii réew mi am na ko ngir mën a neexal loole ñu mën di ko jariñoo nee na nag loolu buñ ko xoolee ay ndox mu baree bari lay doon moo xam ne nii incha allah nañu ko doon xoole rek te duñ ci mën a am menn pexe muy naqari ba kenn du ko mën a jëfandikoo nee na loolee moom dañ cee dog wor nee na nag lu ni mel itam am na ca Koungheul ba lu tolloo ko milim bu takku ci ay hectares mu ci wàllu yenn barab yoo xam ne ni kenn mënu ko woon a jëfandikoo dinañ fexe ba ndox ma di fa ba ñu mën a fexe itam ba ñu mën ko di jëfandikoo am lu tolloo fukki junniy hectares ak ñaar yoo xam ne ni bu ñu yeggee ci cëppaanjow dinañ ci mën am ci lu ni ci loolu yoo xam ne lu tolloo ko téeméeri milliards ak juróom fukki milliards ak juróom-benn yoo xam ne ni dugal nañ ko ci ngir lépp loo xam ne nii dafay soxal wàllu Preferlo yenn barab yoo xam ne nii dañuy doon barab yoo xam ne dañuy faral di maral te loolee nag kenn mënu koo seetaanoo ne rek ñu dog ca wor nag ba mën a fexe ba feek ndox mi ba mën a yegg foofee nee na loolu itteem la ci yenn barab yooyu mu waral lu toll ñaari fukki ñaari téeméeri kilomètre ak fukk ak ñeent yoo xam ne nii yenn dëkk dëkkaan yoo xam ne ca weeru Kër Momar Sarr ak Ranérou te ñu tumrank woon lu ni mel ba kenn mënutoon a jëriñoo joojee suuf loolu dinañ ca dog war incha allah nee na loolu itam bokk na ci li nga xam ne nii itte la ju ñu war a mën a yaatal foofe wàllu ndox mi ak wàllu assainissement bi maanaam yenn xayal gi ñuy xayal ndox mi nee na loolu Sénégal goo xam ne nii Sénégal gu ñëpp bokk la waaye Sénégal ku nekk di gis ku nekk di gis boppam nee na loolee ko fas yéenee màndargaale mooy fexe ba yenn ndox yi nga xam ne nii ay ndox yu xayadi la mbaa ndox yoo xam ne itam dafay indi gàllankoor mbaa yoo xam ne nii itam léeg-léeg ci jamonoy mbënd day ay jafe-jafe war wañ cey dog ñu mën a fexe ba lépp luñ ci war a mën a jëriñoo ñu mën ko cee jëriñoo lépp luñ jàppoon itam ndox mu xayadi la ñu mën fexe ba xayal ko mën koo jëriñoo te ndox mi itam bañ a lor kenn nee na loolu ca station bi nga xam ne moo nekk ca Cambérène ak li nga xam ne itam moo doon bëri ndox foo xam ne itam mënuñu wax collecteur Fann Hann Fann mu nekk jumtukaay boo xam ne dafay dajale yenn ndox yi mun leen a itam diigal ci biir géej gi ak leen loo xam ne itam ay tawat waa Amitié la woon waa Grand Dakar waa Biscuiterie waa Mermoz Sacré-Cœur waa Sicap waa Liberté waa Dieuppeul Derklé waa Grand Yoff ak HLM ak yeneen barab nee na nag loolu doon na loo xamante ne ni lu am solo la ci wàllu xayal ndox mi noonu lañ ko gisee ci diwaanu Ndakaaru diwaanu Kaolack diwaanu Louga maatam pikin Rufisque ak fi nga xam ne moo doon Tambacounda Ndar euh, euh, Tivaouane ak Touba. ci wàllu njàng nag nee na njàng ci boppam dafa doon loo xam ne ni am bu dee euh, réew mi da di jëmmi doomu aadama njàng mi mooy xol bi te nag xol boobee ca lu baree di jóge moo waral itam muy mën a wagg lu bari moo itam luy war a mën a lijjanti lu bari nee na nag njàng moomu nag ku nekk xam ne ne am na jiiku yu am solo yuñ ci def ba mu am lum ñu jural la cay mandarga mooy boo xoolee koppar yi ñu nattal réew mi téeméer boo jël ñaar fukki bi ak juróom dañ koo jagleel wàllu njàngale bi ngir xam solo su njàng ci am réew yenn université bi nga xam ne moo doon université Amadou Mahtar Mbow misaal la ci liggéey bi ñu liggéey li nga xam ne nii itam moo di yenn l'école yu mag yi nga xam ne nii dañu ciy jàng tàggat ay xale ñuy mën a am itam xam-xam bu tonaw itam mu def ay cours préparatoire itam mandargal la ci université bi nga xam ne nii moom lañ dippee El Hadj Ibrahima ñas mandargal la Euh, li nga xam ne nii moom moo doon doole gi ñuy dooleel yenn université yi nga xam ne nii moo doon université virtuelle ak lu tolloog ñeen fukk ak juróom-benn ci loo xam ne ni ay barab la yu ñuy tigi ci wàllu sukkandiku ci xaralu yees yi xale yi di ci mën di jàng di ci mën a am xam-xam itam loolu mandargal ci nee na université bi nga xam ne moo doon université Euh, Souleymane Niang ca Tambac euh, ca maatam ak li nga xam ne itam moo doon université bu Sénégal oriental ak yeneen barab yoo xam ne nii dafay taxaw jëm taxaw jëmmi université itam nee na loolee mandarga la ci lu tolloog nag ñaar juróom fukki milliards ak ñaar ci suñuy koppar jël nañ ko dugal ko ngir li nga xam ne nii moom moo doon wàllu njàngale mu xare yi ci wàllu université yi ñu jënd ko ci ay jumtukaay ngir gën a mën a itam ñoŋal loole njiitu réew mi di président Macky Sall xam na ne itam wàllu retraite yi ñii di doon jàngalekat yi ba tey ci wàllu ku nekk xam na ne yokk nañ ko yokk bu tonaw nee nañ itam yokk nañ li nga xam ne nii moom moo di anam yi nit ñuy liggéeye moo xam ñi nekk ci bureau ya moo xam itam ñi nekk ci mboolem ñi nga xam ne seen dafa laaleeg wàllu njàng mi nee na loolu yokk nañ li nga xam ne itam moo doon seen taxawaay ak nañ leen war a mën a jàppale nee na université bi nga xam ne ni moom moo doon université Cheikh Anta bu Ndakaaru nga xam ne mu ci déndu Afrique sawu jant xam nañ ne eh, ci wàllu université yi bokk na ci ci gën mbaa mu gën ci nee na itam boo xoolee yenn jàngalekat yi nga xam ne nii dañuy yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram ak wàllu science ba ñu demee concours agrégation ca kames ñun ñëw ca jiitu loolu nag di mandarga rek solo ak taxawaay bi suñu njàng am ak suñu njàngale am nee na nag la cay beneen misaal mooy doomu Sénégal mbaa doomu Afrique yi nga xam ne foo jàngale nañ leen fii ci suñu réew day fu ñu dem fu ne dañ fay siggi buñ nee suñu université lañ leen jàngale itam ñu xam ne am na njàng mu fenn njàng mu bënn njàng mu mokk muñ leen jàngale fii loolu moo waral nee na nag dañ ci gën a gar suñu bakkan gën cee waggar la cay màndargaal mooy incha allah ci at mii ñuy dugg buñ ci yàlla yóbbu jàmm lu toll ak ñaar fukki lycée ak ñaar ak yeneen collège fu ci mel ne Ndakaaru Kees Kaolack Kaffrine ak Sédhiou dinañ leen a gën a jëmmal gën leen a liggéeyaat gën leen taxawal waaye itam am yeneen liggéey lycée yoo xam ne itam nañ leen defaraat gën leen a ñogal bañ gën seen xar kanam gën a yaañ fu ci mel ni bu Blaise Diagne Seydina Limamou Laye Seydou Nourou Tall John Fitzgerald Kennedy fu ci mel ni itam El Hadj Malick Sy bu Thiès ak El Hadj taal Tall Omar Foutiyou Tall ak yi nga xam ne itam moo doon Charles de ca mu nekk ca diwaan bi doon diwaanu Ndar ak Valdiodio Ndiaye bu Kaolack ak lycée Djignabo bu Ziguinchor moom njiitu réew mi nee na mi ngi woy itam di xamle ne jox na itte ju mat sëkk ak solo su mat sëkk li nga xam ne nii moo doon daara yi la cay màndargal mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre wi nga xam ne nii moom la ñu génn ci fan yi am na ci taxawaay boo xam ne ne seqoon na kook ñooñu nee na nag loole dafay màndargaal rek taxawaay bi daara ma sa am démb tey soog a ñëw ci li nga xam ne moo doon wàllu njàng mi ndax nee na moo loolu tax na lii doon lu tolloog téeméer bu nekk ñaar fukk ci la ñuy jagleel wàllu l'école yi ci wàllu woowu dinañ ci gën a mën a gam taxawaay bu am solo boo xam ne dinañ ko jagleel wàllu njàng mi ak wàllu njàngale nee na kër gi ñuy wax DER/FJ mu yor ay koppar banqaaso ci nguur gi di am itam ñu muy jàppale ci wàllu koom ku nekk xam ne lu tollook ñaari téeméeri junni ak juróomi junni ci ay lim am nañ ñoo xam ne ni itam digaale nañu ak moom ba am lu ñu leen abal ci wàllu koppar di leen ko jàppale nee na nag loolee incha allah yokkute lañ ciy def ak gën na ci dem ca kanam ba li nga xam ne nii moo doon taxawaayu DER/FJ daal ak li nga xam ne itam moom moo doon liggéey bañ ko sant ngir gën mu nekk ci wetu askan wi loolu gën cee mën a indi waar woo xam dañ ko ciy bay nee na ci wàllu wér-gu-yaram li nga xam ne ni mbaa wàllu wér-gu-yaram nee na li nga xam ne moo doon wàllu cosaan ak aada li ñuy wax culture urbaine yenn musique yoo xam ne ci wàllu rap ak lu ni koppar yi ñu leen jox ku nekk xam ne ni am na lu tonawu lu ñu leen gën noonu mën a jagleel loolu yëpp ngir xamal ñooñeekat ne desuñu leen ginnaaw kenn day naagalu leen te itam am na solo soo xam ne solo su am solo bu cër bu am solo la buñ leen jox ci wàllu woowu nee na dëkk yoo xam ne nii dañu am lu ñu fay liggéey ci wàllu l'hôpital misaal la ci ca la jugal ci wàllu kër docteur Sédhiou Kaffrine Kédougou Tamba Touba ak Agnam yooyu yëpp doon ay l'hôpital yoo xam ne ni dañ leen tijji defar leen bañ ni ñoŋ ngir askan wu mën di fa saafaraw mën itam di fa sàkku li nga xam ne nii moo doon paj noonu itam lañ ko gisee ci yenn fu ni itam Tiwaawan ak soog ak Ndar ci liggéey yoo xam ne itam semb nañ ko ak naal yoo xam ne itam naal nañ ko ngir wàllu kër docteur foofee fu ci mel l'hôpital principal itam ak fu ci mel ne fi nga xam ne nii moo doon hôpital Aristide Le Dantec la ñu fay yeesal ci wàllu kër docteur yooyu lépp dafay mandargaal rek taxawaay bi nguur gi am ci wàllu woowu ba tey ci wàllu yi nga xam ne itam moom moo doon kër docteur am na ak yokk goo xam ne nii dinañ ko yokk nag gannaaw ba ñu yokkee tabax yi yokk itam koppar yi waaye yokk nag gën a saytu bu baax gën a ñoŋal bu baax itam yorin wa ngir lépp gën a doon loo xam ne ni lu dëppoo ak yoon lay doon nee na sax loolu moo waral ñu sukkandiku ci xarala yu yees yi ngir yorin wa lépp gën a doon loo xam ne itam lu leer lay doon dara bañ cee lënt waaye nag la digaale ci wàllu jëflante ak ña fay liggéey itam ñu gën di mën a diisoog ñoom ba gën a mën a yokk seen nekkin ci dendu Afrique nee na ku nekk xam ne ne suñum réew moo jiite kuréel gi nga xam ne nii moo doon Union africaine te nee na nag loolee am na taxawaay boo xam ne nii itam taxaw nañ ko ci ci defar ci ak rafetal ci li nga xam ne itam moo doon yaakaar ak kóolute gu ay nattango yu réewu Afrique am ci ñun ba dénk ñu leen ni mel nee na loolu nag am na ci liggéey bu rafet boo xam ne doxal nañ ko ci ba suñum réew nag ak lind Afrique fexe nañ ba dénd Afrique Union africaine lii doon kuréel gii di gevin 20 doon kuréel goo xam ne itam ay réew yu am doole lay bu nekk ci àdduna waa Union africaine am ci ab cër loolu nag ci suñu ay gi nga xam ne nii itam moom la ñu ay ci la ñuy dox jéego yu ni mel ba rafet ci njort lool itam ak ñu ñu ko seqal loolu moo waral mu ciy sant bu baax di si itam am mbégte ci wàllu woowu nee na ba tey ci li nga xam ne nii moom moo doon wàllu tàggat yaram wàllu tàggat yaram kenn du ko tudd te tudd li nga xam ne ni moo di guleet Sénégal doon champion d'Afrique ci wàllu football nee na loolee nag tey ndam lu rëy loo xam ne nii ab liggéey la laaj te ku liggéey itam dangay ngay waaye ba tey nee na ñetteelu yoon a ngi ni suñu réew di bokk ci coupe du monde nee na loolu itam ba ab sag bu rëy la nee na nag loole bu ngeen gisee ñu am ko mooy la ñu ko may nañu ko téye te itam gën koo mën a mën a waggaat ca loole ba dara bañ cee doon loo xam ne ni itam luy am lu cee sooxe lay doon nee nag réew mi nga xam ne moo doon suñu réew dañu doon ndono bu ñu jëlee ci ay mag ñu defar ko leem ko ñoŋal ko ba mu doon loo xam itam mu nekk xar kanam rafet rafetam lool ñu neex neexoo gis lool nee nag waay waay waay waay waay nag ku nekk xam ne lii kat moom ndéem dañ ko bokk ñun ñëpp te ku nekk war cee mën a bay sa waar ku nekk itam ca wàll ga nga féete nanga fexe ba la nga ca war a def nga def ko ca na nga ca war a mel nga mel ko ca na nga ca war a taxawe nga taxawe ko ca ba dara bañ a sooxee ci yow bu ko defee dara du sooxe ci kenn nee na nag loolu bu ñu ko bëggee dañuy fexe ba xam ne kenn ba doon mënum lëm rek kenn itam bu mu jàpp ne mu doon nga ci lenn loo xamante ni loo mën nga ci lu ci sa moroom mënul kon nag nee na loolu dafa nekk liggéey boo xam ne nii ku nekk na ci bàyyi xel ku nekk itam na ci def kéem kàttanam bu ko defee lañ ciy séntu ñu mën koo am ndax réew mi moo ni bindoo te itam mooy taarixu réew mi mooy cosaanu réew mi te loolee nag moom moo di démb réew mi nee na démb joojee nag ndéem ay gone itam dañ leen ko war a defaral ñoŋaloon ba mu jekk itam ngir ëllëg nee na loolee nañ fexe ba mën cee bàyyi xel mën a fexe itam mën a fexe ba doon bennoo gi ak diisoo gi ak ji itam jàmmoo ji ñu am mu nekk loo xam itam moo doon taar ak gànjaru réewum Sénégal nee na loolu nañ ci bay suñu waar nee na man day mi njiitu réew mi loolu ku ci nekk dina ma ci fekk ku ci nekkul itam dina ma fekk ci tool yi ndax kat na ne loolu mooy sama cër lool itam mooy yaakaar yi nga xam ne ni moom la askan wi am te ñaanuma yàlla yaakaar jooju yàkkee ko nee na loolu nag doon na loo xam ne nii bëgg-bëgg la xemmem téef la càkku téef la na ci ku nekk bay waaram ngir ëllëg kat li ñu bëgg suñu réew ñu mën ko ci am nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp di déwénati ñëpp itam